إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين mbokk yi nu ngi sant sunu borom subhanahu wa taala noo ngi koy bàkk noo ngi koy kañ ci mboolem xéewal yi nga xam ni moo ngi koy defal di ko jaare ci turam yu sell yi ak melokaanam yu kawe yi nga xam ni moom rek moo ko jagoo moom sunu borom nu ngi seere ni amul benn buur amut kenn amut lenn lu nu war a jaamu ci dëgg jaamu gi di indi ay njariñ ñàkk gaa def di jur ay lor lu dul sunu borom subhanahu wa taala ñu ngi seere ni muhammad day sallallahu alayhi wa sallam ndawam la yàlla moo ko yónni woon ila al aalamina kaffa bashiran wa nadira addina bi yëpp ñam jamononte lool ak ñi ñëw ci ginnaawam ak ñi nar a ñëw ca gannaawam ba addina tukki amul kenn kuy ñëw ca jamonoom ak ca gannaawam jàpp ci leneen lu dul lislaam lu dul allah dafay perte comme ni ko yoxob alquran waxee ñu ngi julli di salmal ci yonent boobu sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ñu ngi ñaan sunu borom mu dëkkee dotti waamem xéewal ci kaw yonent booboo ki saxaabaam fi yëg picc yaa ngi taw ci kaw garab yi ci àddina ginnaaw loolu kon nu ngi def sant sunu borom bi mu defalee tawfiq ba ñu dellu siwaat ci ron keppaaru xam-xam waaye ci ron keppaaru alquran kon tey muy ñaareelu fan ci weeru màggu barkeel bi di shahru ramadan comme ni ñu ko jujjewoon mbokk yi bi tawfiqil bari subhanahu wa taala fii ba koor gi di jeex allahuma lu dul yennati bis yu ndaw incha allah danañ koy tafsir bis bu ne ñu ngi ñaan sunu borom mu defal ñu tawfiq ak ndëgër laay ak ndes laay nag ndax alquran ci boppam dañu téere boo xam ni dëgg la ñu ngi ci nab nabi dëgg la ci weeram la nu nekk waaye téere la boo xam ni bu jafee jottali la ndax waxi yàlla subhanahu wa taala kon nu ngi ñaan yàlla moom mi nga xam ni moonu moom moom téere bi mu defal nu ak jàppandal akuk yombal akuk ubbeekuk yaatal ba li ñuy jéem di ko faram-fàcce mu leer sunu borom defal na ko mu nekk lépp aw yiw kon balaa ñuy continuer ci bind bi ñu nekkoon balaa koor gi ci suuratu nuur xam ngeen ni lu yaakaar lu la ab julit bu fekkee sunu borom subhanahu wa taala da koo tere muy bàyyi donte lam ko tere am na lu mu cay def waaye ma ngi koy digal ma ngay def donte am na lu mu ca gàttañ lu mbokk yi kooku sañ naa am yaakaar nanu yaakaar lool yërmande yàlla subhanahu wa taala yàlla mu ne yonent yàlla bi nee na yàlla nee na ana inda danni abdi man yàlla daal lu sama jaam njort ci man rek bu dikkee la fay fekk booy góorgóorlu ci lu baax tey njort lu baax amaan na boo yeggee ci yàlla fekk fa lu baax kon mbokk yi nanoom yaakaar bu baax ci yàlla ak yërmandeem ak aljanam ci yaatu wallaay góorgóorlu ci julli góorgóorlu ci yendoo xiif ak ni mu metti te it guddi yi la nga ca mën nga di ca taxawal ah su ko desañ naa am yaakaar insha allah mu ngi ñaan yàlla subhanahu wa taala muy tey muy ëllëg yal na yàlla defal ñu tawfiqi addina ak tawfiq alaxira tawfiq addina mooy sax ci alquran ak sunna tawfiq alaxira mbokk yi mooy tàbbi aljanna yal na yàlla yal na yàlla subhanahu wa taala dimbalee ñu ba ñu dajeeg ay xéewalam waaye dajeeg nag ab yonenteem sallallahu alayhi wa sallam nga xam naa su ma su ma su ma amee xérte ak far-far kenn ci saxaaba yi ba tax may dajeeg moom amaana nit ñi yaakaar ni sax xëy na dañoo ba gën a bëgg a dajeeg kooka ci yonent bi déedéet wallahi lu ñu am ku ñuy bëgg ci saxaaba yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yonent bi lañ gën a bëgg sallallahu alayhi wa sallam daa fekk ni saxaaba yi dañoo liggéey ay liggéey yoo xam ni jàppale sunu yonent jàppale sunu yonent jàppale koo xam joxe seen bakkan joxe seen alal joxe seen doole ñàkk seen lépp ngir yàlla ngir seen ab yonent la shakka ñooñu ñu wàgg lañ mbokk yi ñooñu waruñu leen fàtte seen i ñaan walladina jaau min baadihim yaquluuna rabbana agfir lana wa li ixwaanina alladina sabaquna bil iman wa min awalihim alsahaba sahaaba yaa ci jiitu moo tax mbokk yi war nañuy ñaanal sahaaba yonent bi sallallahu alayhi wa sallam seen siditi baat yi moo doon dagg ak seen yaram yi di tuur deret deret jooju moo suuxat garab giñ nekk ci doon keppaaram tey muy lislaam kon ñooñu waruñ leen a fàtte mukk war nañ leen di ñaanal koo ci dem ci saxaaba yi rek am nay jagoo goo xam ne dafa mel ni moom yàlla da koo bindoon ngir loola yal na yàlla dëkkee tuur ak a dotti ak a wàcce waamim xéewal ak yërmande ak mucc ak njéggalu bàkkaar ci kaw saxaaba yooyu yàlla sunu borom defal na ko tamit kon ci sunu tafsirul quran al azim xam ngeen ne ñu ngi nekkoon ci suuratu nuur borom bi subhanahu wa taala defaloon nañu tawfiq ba ñu yegsi woon ci laaya ji nga xamante ni moom mooy laaya yi fanweereel ak juróom ñu ngi taxawoon ci laaya yi fanweereel ak juróom allahu nuuru samawati wal ard ila axiri l aaya su ma bëggee tàmbali damay wax noo ngi taxawoon ci aayat allahu nuuru samawati wal ard matalu nuurihi ka mishkaatin fiha misbaaxu lmisbaax borom bi subhaanahu wa taala daf doon wane ni yàlla mooy leeru asamaan ak suuf leer gaa ngi mel ni ab lam bu ñu kaste ci biir beer ab lam bu ñu kaste ci am pax wala ab lamp tampet boog soo duggee ca biir ab lamp ma nga ca lamp ba beer ma nga ko wër diw gu ñuy wax olive moo koy taal diw ga dafa leer ba balaa ngaay taal sax muy lerax leraxi mel ne luy tàkk allahu akbar loolu misaal mi leen rek la mooy ngëm yàlla li muy def ci xolu ku gëm yàlla li muy def mooy yàlla ku mu gindi ba wan ko njub li leer gi ñurux ñuruxee ci biir ak xolam loolu la suñu borom di misaal léegi nag comme ni ma leen ko waxee woon mbokk yi alquran ci boppam di ko jàng di ko jàngul di ko fii di ko fiilu wallahi lu am solo la li tax mooy alquran ci boppam dafa duggalante duggalante ba mel ni wenn saar alquran saar yépp dafa duggalante duggalante duggalante ba mel ni wenn saar aaya yépp dañoo duggalante ba mel ni benn aaya dinaa koy wax mbokk yi li la nga jàng wenn saar ba mu jeex ñu ni bismillah rahman wayen saar nga defee ni saar wi ak saar wi amul relation fekk déedéet ku xam alquran dëgg ku ko jeex bu la ko leeralee nekk saar yi ni ñu toppalantee sax dafa am relation bu tax aaya bu ni put aaya ba ca topp rek moo ca war a topp loolu ba léegi daf lay wan ci xam nga ñun bu ñuy wax kawtee fi alquran dañu naan yàlla tuddoon na lii dem nañ ko jamono am na wala ñu ni nangam nangam fekk alquran ay kawtee ba mu ëpp na loolu wallahi fatiha ba naa aaya boo jeexal war a tàmbali beneen saar yëgal ni ñaari saar yi dañoo amuk jokkoo ba ñoom ñaar ñoo waroon topp la benn ngoob ñaareel moom mooy ñaari aaya yoo seen bii jeex bee tàmbali nga foog ni amuñu benn relation parce que dañoo bokkul ci lu ñuy wax ñun la faf ñoom dong la ñoom relation ndax ñoo bokk ci lu ñuy wax laay ju mel noonu feeñ na fii te it lii ak laaj ci suñu rog xobu garab wu lax ba wadd ci doon keppaaru alquran la suñu borom mu ni ginnaaw mu leeralee loolu ba noppi mu ni yàlla day subhanahu wa taala wa yadribu allahu al amthala linnas yàlla mu ngi sadd ay misaal ñeel nit ñi wallahu sa borom yàlla day bi kulli shay'in alim bi kulli shay'in loo gis ci àddina alim yàlla mooy ki ko xam ba jeexal ko tàkk te loolu moom rek da caa wéet càppaacoli la ca yàlla càppaacoli la ci nii da cee wéet ba jeex subhaana nu ngi koy ñaan mu yërëm na laay di topp mooy fi buyutin adina allahu an turfa yàllaa ngay wax ci jàkka ya audu billahi samii alalim min alcheytan arrajim min hamdihi wa nafxihi wa nafxi sunu borom mu ni ginnaaw bu mu misaalee leer ga ba noppi yàlla mu ni fii buyuutin ci ay néeg wala ay néega ngi yoo xam ni adina yàlla dafa joxe ndigal an turfaa nañ ko yëkkati nañ ko ñoŋeel nañ ko weg wa yuzkara fi hasmu ñu fay tudd aw turam nga ne ma li yàlla doon wax ak laay ji ban relation lañ am ndax laay ji ci jàkka lay wax ma ne la balaa ma la ci wax benn xaraf ci dég-dégu alquran rek da ngay xam ne yàlla lim doon wax mooy leer gi doon sauvé xoli ñi gëm yàlla bañ mën a dem jihaad leer yi doon sauvé xoli ñi gëm yàlla ba ñuy mën a joxe liñ am ci alal leer yi doon sauvé xoli ñi gëm yàlla ba nga rey leen tey ñu dee ak ñu bàyyi ba suba ci dimanche yi suba ci altine ji ñoo bokk yam ci ñoom leer gi doon sauvé ñooñu ba nit mën a bàyyi këram jabaram doomam baayam gàddaay ndax yonente bee ko digal leer gi ko doon sauvé ba muy jug guddi di julli ba ay tànkam di neewi sunu borom dalaa bëgg a junju ishaara la wal ishaaratu takfi liman aqal arab yi nee nañ junju doy na ku am xel sunu borom da lay junju la ni la leer googu yàlla doon wax ña ngi ko doon sofewaatee ak di ko solaatee ak di ko defaree nit ñi ca biir jàkka ya allahu akbar loolu la ishaara aaya bi di ishaara te jàkka ya lañ doon defal gaa yi te jàkka ya lañ doon chargé batterie xol yi ca jàkka ya lañ doon waaraatee nit ñi di sobe ca jàkka ya lañ doon waxee nit ñi doon dem ca kër yee jëfee sunu borom mu ni kon diggante leer geeg aay jàkka ji kat am nañu relation ndax ca jàkka ji lañ koy jëlee ci borom bi subhanahu wa taala mu ni fii buyutin bi maana ña ngay am leer ga yàlla du leen gindi di leen jàppale di leen dee defal tawfiq waaye di leen ko defalee fii buyutin ca néeg ya nga xam ne benn ngo wala boog fii buyuutin ay néeg ngi yoo xam ni te boo ci wax jub na adina yàlla dafa digle an turfaa nañ ko yëkkati yëkkati gi nag tekkiwut comme nit ñi niñ koy defee ci jàkka yi foofu bala ma ci wax benn baat sunu kaset yi nu wataare woon ci jamono yi paase di ci jàngale Buluugul Maraam dars ba ca mujj ca seede boobu mooy baabul masajid buntu ba wax ci jàkk ku ca dellu insha allah maa ngi yaakaar ci ni li ëpp ci li ngay soxla ci masalay jàkk di nga koo fekk kon li ëpp ci lu ma fa nar a faram-fàcc fii bu ma ko toppee mu jël sunu waxtu waaye ku dellu foofa masala ya ngay soxla ci jàkka yu bari genn wàll ak sax la ñëwul ca téere ba indi nañ ko ci insha allah kon an turfa mooy nañ ko yëkkati rafu gi mufassirun yi te bu fekkee dañuy wax ci xam-xam quran fal umdatu al mufassirun bu ñuy wax ci xam-xamu xadis fal umdatu al muhaddisuun bu ñuy wax ci xam-xamu alquran balaa ñuy jël waxi kenn nañ jël waxi mufassiruun yi bahrul umma wa turjumaanul quran di seen imam lan wax ca laaya joojee loolaay la gën a wér lu ca kenn wax su fekkee dañuy wax ci xam-xamu xadis dañuy seet gaa yi nga xam ne seen ak màcc yàlla ma ngi ko defoon ci xadis leneen lu la waay wax lu dul lii ma la wax loola wérut ndax loola borom xam-xami tafsir yi waxuñu ko téere bi ci gën a woyat nga xam ni jàngkat yu ndaw ndaw ni mën nañ koo yëri dama ciy delloo sunu mbokk ndongo yi lu bari mooy taysirul karim irrahman fi tafsir alkalam almannan bu cheikh nasir saadi ku mel cheikh nasir al albani bi ñu ko laajee ana yan téere lañ war a tàmbale ci jàngum tafsir bokk na ci téere yam tudd bii kon xam ngeen ne téere bu rëy la ca kaw waaye bu wàcc la ba fekk ci ñuy doog a tàmbali al allaamatu saadi mu ni laay ji boo koy teg an turfa nañ yëkkati néegi jàkka yi ah mu ni yëkkati gi yëkkati dundal la te dundal ga ñaari façon la dundal gu njëkk ga mooy giñ gën a xam di fa julli di fa zikr di fa def ay jaamu yàlla ñaari lu dundal gi mooy di ko setal di ko yaatal di ko defar kon loolu dafay firndeel kiif kiif waxu yonente sallallahu alayhi wa sallam tey boo dikkee ci jàkka yi ne dañu jàpp ne yëkkati jàkka mooy yëkkati jàkka ja ba doo xam fu mu yëkk ci asamaan soo di ñoqaliku ba subhanallah fan yi passé maa ngi génn ci dëkk bi di wuti tàndarma romb ay baa yu taxaw ci benn jàkk mooy jàkk bi nekk kër mbay faam ma taxaw ci buntu jàkk ji maa ngi dégg ci naan séet séet séet séet gis nga sooral bi ñu guddee da ngay nekk ba kër ma sax di ko séet ñuy bàkkoo loolu maa ngi taxaw ci buntu jàkk ji ma ne lii dafa naa mooy la waroon jàngale àjjuma ji baal dama ni gudd leen day sooroo ak rafeti jàkk ak di ko mukkete ak di ko nangam ci mandarga yi mujjug jamono la bokk yéen ci yàlla bi dañ laa taqumu saa àddina du tukki xatta yatabaara annaasu bil masaajid lu dul nit ñi dañuy commencé tiitaroo jàkk yi suñ jàkkaa gën a gudd sooroo suñ jàkkaa gën a guddub nangam suñ jàkkaa gën a rafet ay mokket suñ dama ni loolu insha allah kenn du cal ci yàlla loolu moom xam leen ko bis ni ki tey guddal sooroo nga taar taaral jàkk téeméeri moo toll juróom-ñaar billahi aleykum jàkka joo xam ne ña fay julli ci heure loo mën nga xool loolu benn montre doy ci génn jàkk nga dugg fekk ko juróomi montre xanaa xool heure taxatu la jug nag dama ni bu dee masalam manaara sooroo la ma ca waxoon laa tey waxaat tey mooy sooroo ci jàkk amul woon ci jàkka yéen saxal sooroo amul woon ci jàkka yéen saxal ku la ko wax wax na lu amul jamono suppeeku na nag ba ay nit def ko ca waaye bàyyil xel ni def def yu bari yu jàkka yonent bi du def defu saxaaba ya boo delloo ci kaset bii ma lay wax lu gën a yaatu lii ak i tegtalam da ko ci fekk benn bi ci des mooy bu fekkee amul benn yella fenn rek la yenn ci borom xam-xam yi waxee mën nañ koo def mooy fan mooy bu fekkee étage yi daf immeuble yi dafa dem ba tiim jàkka ci nga xam ne ñu dëkk fépp ay immeuble la comme benn biir biir Dakar tey jàkka jàkka ji am na lu muy demee boo noo doon këcc douzième étage du ko dégg su boobaa mën nañ def manaara ngir haut-parleur yi nekk même borom xam-xam yi ni mën na ne ci jàkka sax lii lañ wax kenn ku la wax ni yéen yàlla sax la bi mu rombee saxaaba yi ñuy tabax jàkka ji fekk jàkka yéen dafa màgg boo yéen yàlla bu romb leen ñu koy tabax mu ne ibnu bu harisan ka harisi Moussa te haris bi haris la bu wér tabax leen jàkka ji comme nañ Moussa tabaxe woon mbaar ma mi jaamoo yàlla ñu ni ko ma arish Moussa ya rasulallah imam Hasan al-Basri mu ni mooy koo xam ni boo amee taxawaay tuuti njool boo yëkkatee sa loxo ca tibaaram mën a laal fo place mu ni loolu doy na ci jàkk allahu akbar léegi di jàkka yee gën a njool étage dëgg la buñ ci amee aajo fekk ñu war a julli ca kaw suba mën naa nekk beneen bi des mooy yonent bi neen maa umirtu bi tashyidil masajid digaluñ ma pour may taar taaral jàkka yi allahu akbar nga ni ma saxaaba yi dañoo am loolu ma alal moo tax seen jàkka yi dawul taar ma ne fuuga waay yaa ko wax loo xamut dëgg la man nga ni jamono yonent bi amuñu woon alal te am nañ alal sax te mu jëntal ko man nga ni jamono abubakar amul alal ndax abubakar dafay yàggu ñaari at yu manqué wala yu mat sëkk na fi def jóge fi waaye yëg nag jamono alal nga xam ne aktarul futuxaat al islamiya li ëpp ci ubbi yi ñu def ci l'islam jamonoy saxaaba ya mi ngi amoon ci jamonoy Omar alal bari lool ba ñu gàtt gàddaaral jàkka ji ñu war koo defar xoolal alal am na fi tey bu fekkee ñun dañoo jàpp ni defar sunu kër yi bàyyi jàkka ji mu mel lu simple loola mooy ñàkk bëgg yàlla déglu saxaaba yi ñëw. Omar dañoo ñu benn ingénieur mu ñëw taxaw Omar di ko hey akkim innaasa an il xarri wal matar wala tusaffir wala tuhammil fexeel ba nit ñi bu tawee buñ tooy bu naajee buñ tàng bul peinture jàkka ji peinture bu xonq bul ko peinture peinture bu son bàyyi ko peinture bu weex unique lii may wax lu wér la jànkat yi xam nañ ko bu fekkente di kon war nañoo defar jàkk Abubakar yokk na jàkka yonent bi waaye yokk ko ca la yam ndax daa xasoon Osman Omar yokk na jàkka yonent bi waaye ca la yam Osman yokk na ko waaye ca la yam Ali yokk na ko waaye ca la yam amul kenn koy def ñun la ba mu ko yokkee peinture na ko mbaa def na ca lii mbaa def na ca laa dëkk la yi nit ñi aajowoo nag dara newu ci ab montre bu ci amee benn teg ci jàkk dara newu ci ventilo ndax day tàng dara newu ci te war naa tax ñu gën a jaamu yàlla nag war naa tax ñu gën a jaamu yàlla wallahi saxaaba ya koo ci xool ab jëm dafay mel ni oomu giléem oomu giléem gis ngeen oomu giléem ni muy dang koo ñagasu mel ni lu yàgg sukkiti xeer te noonu la yàgg def ndax jàkka ja dafa amoon ay pepp pepp xor da ngay sujjoot léeg-léeg yëf yi di la jam wallahi alazim saxaaba yi ñëw nañ benn bis ni ko yonent yàlla bi est ce que tisbaar bu jotee mën nañoo bàyyi ba quatre heures quelque ñu doog a julli xam ngeen lu nekkoon sabab makka dafa tàng tàng tàng tàng tàng ba tabletu nga ni boo ko tegee ci kaw xeer une heure de temps mu ñor xom nga jël lekk jërul ngay baax am na barab yoo xam ne boo jëlee tabletu nga ni teg ko ci kaw xeer yi une heure de temps mën nga koo jël lekk ndax tàngoro ci asamaan a koy ñoral fan la ñuy jullee ndax ñoo ay moquette ay sijaada ay nangam déedéet da ngay kuy def ba si jot nii lay def nga ngi kuy sujjóot lal musuwaar lal kaala saaba yi dañoo dem ba mënuñoo sujjóot ci waxtu julli bu fekkee ci biti la la fekk mbaa ci suuf si loolu bokk na ci sabab yi tax l'islam may li ñu tuddee ibraat muy teral te loolu ñun jàkka yi nan koy def sunna soosu deeyal nañ ko nan koy def ibraat ci ñaari waxtu yi rek lay am benn bi ibraat la benn taxiir la ibraat mooy yeexe tisbaar tisbaar mën naa jot ñu bàyyi ba trois heures ñu doog koy julli wala trois heures trois heures sax et ñu doog koy julli lu tax loolu dañuy jëli sunna yéen yàlla bi ne ila stadda al xarru fa abriju saa bu tàngoori mettee teral leen julli gi yeexe ko ndax fa inna shiddat al xarri min tayqi jahannam tàngooru metti wi cóolóor soosu di génn daa tombeeg sawara di nooyi su dee ci guerre rek mën nañ koo taxiir ci boobu tamit ñun jàkka yi duñ ko jëfe te sunna la mooy guerre suñu xoolee ni ñu ennemi li ñu julli imaam bu geesoo gis nit ñi bareetul nañ toogaat ba ca kanam ndeysaan maal asati shadid nit ñi dañoo yàkkamti yàkkamti léegi ba kenn tënk loolu sunna ba dama ni yéen yàlla bi nee na ida raahu ci xadisu abi barr al aslami te ci buxaari ak muslim dañuy ci gee wa fi l ishaay ida raahum ijtamaau ajjal wa ida raahum aqaru abtahu axaru yent bi day gerte bu mbooloo mi baree mu yéex a julli bu mbooloo mi yéexee mu yéex a julli te bu yéexee julli ba noppi danañ bu dul woon ak bañ a sonal nit ñi fii la waxtu bi baaxee gis nga ñiy góorgóorlu ci sunna buñ dekkalul sunna yi fa lay dee ne keneen du fa jógee ci mbooloo mi di ko dekkal kon mbokk yi nañ yëkkati jàkka yi mooy nañ ko tabax tabax dara néew ci dëgg la jàkka yent saa sallam tabaxuñ ko woon ëkki tàndar moom moo taxawoon ay datti tàndarma lii ci tàndarma ni ca kaw bu naajee dañuy tooy commencement bi sax ba doon sunan abi daaw ab xadisa nga ba bu lay wax ni xaj yi sax dañu daan dugg ci biir jàkk bi dafa taw ndax amul woon bunt commencement bi bunt sax amul ko waaye nag jàkk ji mën na da koo tabax bu dee suñ jamono ji buñ ko tabaxee mën naa simple yaatuwaay moom amul problème luñ ko gën a aajoo mën na nekk yëkkati gis buñ gisee aajoo ko laaj mën nañ ko koo def ay karo dama ne karo wutiwul dara ci jàkk ak jàkk ju mën a doon laa wax karo wutiwul fa dara montre benn doy def te man damaa jàpp ni sax montre bu ñu koy jàpp gis ngeen suñu jàkk ji niñ ko def xaw ma ku def fee montre maa ko wax na ko def fële lan moo tax mooy nit dafa am ñu feebar ñoo xam ne balaa yoon kàbbaar sax ne leen nii mën heure moo soo paree muy xool ñaata minute lañ julli gis nga man ngaa gis ni sama yàlla yoo xam ne bët ba ni dem ca montre ba mu xool ban heure bu dee heure dong lañ ko dee damay nañ ko def ca xooloo ku soxla dem xool xoole ko bu dee loolu dara bu fekkee nag dañoo bëgg a rafetal jàkk ji nañ wax nit ñi montre feebe montre fii montre man damay dugg benn jàkk léegi wala jàkk ji mu dugg damay wàññi montre defe naa jàkk ji subhanallah jàkk ji ak montre si wax fekk man na juróom-ñaari montre mbokk yi juróom-ñaari montre lu wut jàkk xanaa léegi jubloo tuñ ci xool nag heure léegi déedéet wala jubloo tuñ ci xool léegi leneen lañ ci jublu gis nga beneen bi des mooy bu fekkente ni ay moquette la wala yu demee noonu moquette unique lii ci gën damay moquette bu am ay dessin ay juma comme ni ngeen ko gisee suñ moquette yii moom suñ moquette bii buñ jógee ku ku bëgg tiyaaba ci koor gi mën na kaa jël mu leen ko teg fële wut moquette unique ndax loolu muy sunna yéen yàlla bi dafa julli ci benn mbubb mu am dessin te addiyee leen ko ko may abi jaamin moo ko may yonent bi julli ba pare rek ko par nit summi daal ni jëloo leen mbubbi abi jaamin ñu ne ko lu tax mun dessin yi ñu ci def moo ma teree teewlu sama julli billahi alaykum mustafa hadihi l umma yonent bi ak nam ragalee woon yàlla ah di fanaanee jooy huit heures ba fajar ngir na yàlla yërëm xeet yi ku ragal yàlla am tollu foofu bu dee day julli ci mbubb mu am ay dessin wax mooy oto ay oto ki ay dessin rëdd rëdd rek mu ne loolu moom la nekk di ko xool lu mu tere koo julli su fekkee moo tollu foofu kon man ak yow lu ñu war a def ku bëgg tiyaaba mën nga jël moquette bi indil ñu bu ko gën a baax nag boo xam ne unique lay doon comme nii nga xam nit ki du am lenn benn couleur boo xam ne mooy tax bëtam di fenn loolu mën naa nekk ci jàkk beneen ci des mooy jàkka ci boppam yenn yu bari yoo xam ne ñu ngi ko tey def guddal soorar yaa noo bi gën a guddal moo tax alimam sanaani boo demee subul salaam day wax ni yonent bi day nee na digaluñ ma ma defar jàkka yi di ko taataa mu ni ku ne war naa xam ne bu doon lu baax kenn du ko ko tere kon dañ ko koy digal wax ju am solo la kon mbokk yi fii bu yuuti ay néegi ngi yoo xam ne addina yàlla dafa digle an turfaa addina allahu yàlla dafa digle an turfaa nañ ko yëkkati yëkkati googu nag mooy yëkkati di ko defar waaye nag ndax manis dafa di peinture waawaaw bunt yu baax ak fenêtre ah waawaaw ma ni dañoo war na am sax benn benn góor wala benn jigéen boo xam ne day waroo defar jàkka ci allahu akbar am na benn xaw booy jàng am ndongal Abu Hurayra ñu koy wax Nuaym al-Mujammin Nuaym al-Mujammin jàng na ci Abu Hurayra vingt ans bàyyam daraan def bis bu ne wala àjjuma ju ne day dem boyal defar cuuraay yi gën a neex ci cuuraay yi ñëw def ko ci jàkka ci man de gisaguma góor wala jigéen ñu koy def benn yoon laa ko mos a gis fii ci jàkka ji xaw ma ko defoon waaye na gaaw tollanti ko wax loolu sunna la am na meer boo xam ne bis bu ne dana ñëw ci jàkka yonent bi bale ko ba mu set wecc gisoon naa ñu ko fii def gis nañoo ñoom nañ dellu si waat maire ba xëy day yonent bi toog ñaari fan gis lu gis jàkka ji xaw a sànq mu ni waa ana maire bi doon bale jàkka ji saxaaba yi ko mu koo ko dee fan ñu li paase allahu akbar yonent bi dafa mer ba bëgg xonk sallallahu alayhi wa sallam mu ni afala aasantumuni lan moo tax bi ñu dee yëgal luñ ma ko ma ñëw sànq ko ma sànq ko jullee ko ndax meer bi li mu doon def ni mu réyee fa yàlla yonent bi defal ko lu mu defalul daanaka saxaaba yu bëri mooy nag muy julluuni ala qabriha wan leen ma fa armeelam nekk ñu wan ko armeel mu ànd ak saxaaba yi dem ba taxaw ci armeel ba jullee waas ko julleeg néew ah ku yonent bi kuñ ku saxaaba yi julleeg saxaaba yi niñ baaxee ba yóbbu la yonent bi ñëw fekkee wu ko tax metti ko mu jullee la am na noo def meer boobu moo doon bale jàkka yonent bi nañ am ñuy defal jàkka ci di ko bale di ko tetal amara nabiyu sal allahu alayhi wa sallam bi binaai duuri fi lmasajid wa an tunaddafa wa tutayib li xadis la bu wér yent yàlla bi neen yàlla dafa digle ci kër yeeg koñ yi nañ fa tabax ay jàkk di ko setal waaye di ko xeeñal gëttal di ko xeeñal tutayib mooy ñu koy gëttal kon jaam na kenn mu fexe wala boog ñu xëccoo ko rawatina ci weeru futtiyaaba wiñ toll fexe ni man kat sama jàkkay koñ soobe yàlla man maay war na damaa koy bale allahu akbar bu la yonent bi fekke woon ba nga dee ba mu jullee la di nga xam ni bale jàkka am solo dama ni benn salte yonent yàlla bi nee na benn salte boo fekk ci jàkka nga di ko coppet sànni ca biti rek ñu kafaaral la ci ay bàkkaar kon ku bale jàkka de moom xanaa ay bàkkaar lañ koy kafaaral xanaa bu dee benn salte ngay génn gis kon mi ngi noonu waaye an turfaa nañ koy yëkkati wax naa yëkkati googu du yëkkati tabax waaye yëkkati ormal la yëkkati setal la yëkkati defar ko mu simple lool xam ngay jàkka yi léegi yi comme ni ma la ko waxee néew na jàkka jooy jugg am ak teewlu ca la ngay julli lii nag masala mu yaatu la ni ngi dëggal suñu wax waaye dars yooyu ma joxe sànq ku ca dellu lu gën a yaatu ëpp gën a leer lii ma wax danga ko ca fekk ndax foo bàyyi wàll incha allah suñu borom wa yuskara yàlla dafa digle ci ne nañuy tudd fii yaa ca jàkka ja ismuhu aw turam moom yàlla subhanahu wa taala gaa yi nga xam dañuy topp nag ay dëkk yi dëkk yi caaxaan di ko askanee jàkka bokk na ci li ñuy tëkkale mooy laaye ji déedéet déedéet booy diir mag da ngay diir mag koo nuróol wala koo bokkal si lëf waaye koo xam ne ma nga ne ndong ci kaw ngay bërënga ci suuf si di ko diir mag ah yaa ngi bëgg a wane sa gàtt yéen yàlla bi nee na yàlla dafa digle wa yuskara fii hasmu nañ koy tudd yàlla dama ni zikrullahi buñ ko tuddee qiraatul quraan ko tax a dugg jub leneen lu ci ñëw damay da caa topp rek dëgg la dina ko firi waaye da caa topp lii moo ko tax a jub kon wa yuskara fii hasmu mu fassiru nañu ne li gën a wér mooy nañ koy tudd yàlla te di fa julli ak di fa jàng quraan ndax yooyu nekk ak di fa def tamit say azkaar yi nga xam ni moom la yonent bi jàngale sallallahu alayhi wa sallam wa yuskara ñuy tudd yàlla fiiha ci jàkka ji ismuhu tura suñu borom yusabbixu lahu dina sàbbaal yàlla fiiha ca jàkka ja bil xuduwi ci waxtu suba wal aasaali ak waxtu ngoon bu mu tax nag nga jàpp ni kon yenn dog yi nga xam ne ay nit ñoo koy kere di ko def waxtu suba ak waxtu ngoon tax na ma am cosaan déedéet dama ni def zikr bépp jaamu yàlla bépp wird mbir yi nag la ma doon wax mbokk yi laa budda an tajcalu l asabia ala nuqa kay yettadaxa al amr faaw rek da ngeen di jël baaraam yi ni ko fàtt ci tomb yi wax mu leer ndax ñi bëgg lu leer xam bu ñu jógee jëf dama ni bépp zikr boo gis ci àddina buñ la jox laajal cosaan ba ndax yonent bee ko joxe wala déet joxewu ko moom bàyyi moom amul sax ay ma dem dañoo explication bu gudd yonent bee ko joxe ana fi mu ko joxe léegi moom yàlla def ni alhamdulilah doon naa mbokk yu bëri ñu dem bokk na ci mandarga yi ñu jamono mooy xam-xam bi yàlla da koy dénk gone yi inna min asraati saa an yultamata al ilmu inda al asaabir loolu xadis la bu wér yéen yàlla bokk na ci bu njëkkoon mag yi rek amoon bëri xam-xam waaye yéen yàlla bu àddina di waaj a jeex xam-xam bi yàlla da koy dénk li cëpp ci ndaw bi léegi mu daanaka ndaw bi bari jàng rek nañu la téere sàngam rek nekk téere ba bu dul téere jinne insha allah jeex na jamono dem xool yéen si bee ko xam nga ne fu mu ko waxee yéen si wax ko suur naa kafaani bi muhammadin uswa doy daw muhammad ndax moom la yàlla wax naa ko rey dama ñaan boo xam nee nañ daa baax Abubakar baax yonent bi jox ko Omar baax yonent bi jox ko Osman baax yonent bi jox ko Ali baax yonent bi jox ko kibaaru saxaaba kadaalik sigaaru saxaaba kadaalik ashaabu shajara kadaalik ashaabu tuhab wal hamdama kadaalik dama ni yàlla bàyyi ba jamono jooja paase benn waay tudd ba ne la mu di ko jox xam ngeen wax ji kat jubut de jubut de li jub mooy la yonent bi jàngale woon rek mooy li wér xayrul hadi ma kaana ali Muhammad nii la dañu la ni zikr saxul sunna yonent bi jàngal ankay am na zikr yonent bi jàngale yooyu nag boo jàngee wala nga laaj ñu jàng ñu wax ko kon yu sabbixu laa nañuy tàbbal yàlla fii gaa ci jàkka ya bil xuduwi di waxtu suba wal aataali ak ngoon lu tax ñu ni waxtu suba ak ngoon ndax lii mooy la amoon ci jamono ji yàgg jëf ju njëkk jëf ñaari julli moo amoon julli goo xam ne waxtu suba lañ koy julli ak julli goo xam ne waxtu aqimi salaat tarafay nahaar wa zulafan min al-layl ca suba sa ak ca ngoon aqimi salaat salaata li duluki shamsi ila gasaqi al-layl ñaari julli moo amoon bii di bee bee ci ñaari ràkk la woon bi yent bi na ñaanee ba ñëw na ci la yëf yi mel nii ñu ko gis tey kon nañuy sàbbaal yàlla dañuy sàbbaal yàlla fii gaa ca jàkka ya bil xuduw bi ci suba bi wal aasaari ak ci ngoon fii nag taxawukaay la def naa loolu ngeen gis waaye ñaari xeeti njàngin am na yoo xam ni benn ba doo taxaw fii dégg leen baax yéen ñuy jàng Qur'an fii taxawukaay la loolu ngeen xam yéen ñëpp defe naa ñun sëriñ si ñuy jàngale ak ndongo yi loolu lañ xamul fii taxawukaay la waaye ñaari jàngin moo ci am yoo xam ne bu dee benn jàngin ba nga jàng mën ngaa taxaw fii ah waaye jàngin bii nga ko jàng yusabbixu lahu fiha bilgudu wal aasaal bu dee jàngi bii ni ci téere bi nga ko jàng doo taxaw ci laaj da ngay continuer nga deme lu tax ma ne la dafa am jàngi ni yusabbixu ak yusabbaxu yusabbaxu lahu mooy def na fa sàbbaal yàlla def na fa sàbbaalalal yàlla fiha ca jàkka ja bilgudu bi ci suba bi wal aasaali ak ngoon wax ji leer na wala leerul bii leer na yeggam dees na fa sàbbaal yàlla ci subaak ngoon li ma wax or bi jubla te leer bu dee yu sabbixu na yu sabbixu dina sàbbaal yàlla yu sabbixu lahu dina sàbbaal yàlla fiiraa ci jàkka ja bil xuduwi ci suba bi wal aasaali ak ngoon bi wax ji jub na wala leer na wala leeru déedéet leeragut am na lu def li def mooy kii sàbbaal kan la rijaalu moo tax borom xam-xam yi abi amir ak Shuba ñoom dañoo jàng yu sabbaxu ñeneen ñi ci def te ibni katir ñoom ak ñeneen ñeneen jàng yu sabbixu ñaari jàng yëpp wér waaye bu dee yu sabbaxu nga jàng ci ngay taxawal asaal bu dee yu sabbixu nga jàng doo taxawil asaal loolu nag defe naa noonu moom ñun sëriñ si yaakaar naa commencé guñ ko jëf ba moo ngi noonu ngay di ko jëf gis nga yu sabbixu dina sàbbaal yàlla lahu lu sabbixu lahu dina sàbbaal yàlla fii naa ci jàkka ja bil guduwi ci subati wal aasaal ak ngoon kon kii sàbbaal ñëwagul moo tax da nga naan yu sabbixu lahu فيها بالغدو والآصال رجال رجال لا تلههم تجارة balaa jeex gis nga kon jeex na tàbbaal yàlla ak dina tàbbaal yàlla am na ñuy tàbbaal yàlla ñan la mooy rijaal waaye dees na tàbbaal yàlla kon wax ji ji leer na dees na ko tàbbaal même bu ñu xamul kafe dees na ko tàbbaal waaye am na ñuy tàbbaal ñan la mu ni rijaal ay góor lañ yoo xam allahu akbar rijaal ay jàmbaari fàq tëdd rijaal ay góor yàlla su ma doxee ci mbedd mi dégg ñu naan diw daal góor yàlla la man damay bëgg lool bi rek pour wàcc wàcc la doo bëgg rek dul wàcc ndax da ngay xam ne moom dëgg yàlla góor yàlla amatul li ñuy tuddee góor yàlla tigi la tax ñu naan góor yàlla dëgg la am na ñuy nekk nekk lu góor yàlla la fi mu ne àddina bi am na ñuy nekk nekk lu góor yàlla waaye dama ne góor yàlla amatul laa wax loolu mu leer amatul su ma déggee ku ni góor yàlla may waaj a wax ndax damay xam ni kii dëgg dëgg dañ kaa solal bu mu ko ëpp moo tax ñu béree ko moom rijaalun ay góor yàlla ngi yoo xam ne rijaalun ay jàmbaar yi ak tëb wa ayu rijaal ñooñoo ñan rijaalun ay jàmbaar yoo xam ne est ce que xam nga ñooy ñan la rijaalun ay jàmbaar yoo xam ne laa tulhihim doxul seen diggante laa tulhihim du dox seen diggante ak seen borom laa tulhihim du leen teree am jotul jaamu yàlla laa tulhihim du fëkk seenam xel tijaratun commerce bu dox wala bayoon ak njaayeen jënd xool alquran ni mu jotalee ak tijaara moom bayoon waaye bu yaakaar ni ñaari baat yi ngay tekki bokk lu ñuy tekki rek kon dañoo répété déedéet alquran waaye da nga xam ne nit ñoo xam seen fasaxa sax romb na foofu nga naan alquran tijaara mooy commerce commerce buñ ko waxee du caagi mu njaay ak jënd yaxam yaxam na nit ñi mën na koo defee ci lu ne waaye lu ëpp ci yaxam bi yi gën a mën a fëkk xel mooy bayam jaayam bi moo tax alquran bi dafa am baax kon laatu li ngeen dox seen diggante tijaaratul am yaxam bu am commerce commerce nan laa nekk sax nit ki yor bureau ma toog di signé te fekk ci commerce bi la bokk du loolu waaye am na kuy toog ci cantine bi la ak kay dem ak a ñëw ak kiy caaxaati kooku mooy def bayo kon dafa am am am xaas ban mooy am bi tijaara mooy am bayo mooy xaas rijaalul ay jàmbaari fàq tëdd bii rijaalul ay góor yàlla ngi yoo xam ne laatu li ngi du fëkk seenam xel ba tax muy sàgganee tijaaratul commerce ba xam yaxantu ba xam wala bayul wala njaay leen njënd ma ñuy def an zikrillahi ba wàññi dara ca lañ doon jaamoo yàlla allahu akbar tër tër tër bu saxaaba yi dellu waatoon fii fii dugg sàngal buñ génnee dem marché tilleen buñ fa génn dem marché atlet buñ paree wàcc ci kolobaan man damay wax ne bala ñu yegg ci Padois sax ba yegg ci marché carré nañuy jéeg ndax lan xamoon ñoo xamul allahu akbar da nga gis ay nit yoo xam ne mbokk yi su ñeenti ay chèque wàccante ay conteneur mooy tax tax nga wax ci julli jot si ko jullee ci wallahi nit nekk na ku jàmbaare pour war na ne mbir mi léegi ñu jàmbaare ñàkk jàmbaare ci mbokk yi nit nekk na ma ñu jàmbaare yoo xam ne ci mbaax ak njub rek lañ leen ko taxam waaye pour war la yàlla ay waxoom dafa naan àll ndax waxi mat la allahu akbar mbokk mi nee na léeg-léeg dañuy ne ci magasin bi saax saax saax saax saax saax ba wóor nañu ne réew bi bu yeggee danañ fekk xutba bi jeex xutba ci maanaam ñu wóor nañu ñoom démb nga xam nañ ko parce que client yi taxaw tax waaw moo tax kenn ci saxaaba yi su fekkee juumuma fàtte moo war a ci taabiyo yi sëlëf Abdullah ibn Omar Salim dafa romb ci marché bi waxtu julli jot gaa yëpp tëj seen kàddu ni julli mu ne allahu akbar haa'ulaa'i humu rijaalu alladina laa tulhihim tijaara wala bay'un an dikrillah ay góor a ngi ni ak ay jigéen bu ñeeri jaal nag bu jigéen ñi jàpp ñu bokkuñu ahankay alquran dafa jox góor moo yërif jigéen jigéen ñi daggit lañ ci góor ñi moo tax lu bari bu yàlla yoo day limaale day lim góor ñi kese ndax jigéen ñaa nga bootu ci seen ginnaaw kon bu niiri jaaroon ay jàmbaari fàkk te da ay góor a ngi nii dama ni ak i jigéen ci seen ginnaaw ndax yéen daal am ni saa soxaata ko rijaal kon am na baat yoo xam ne buñ nee rijaal ci alquran góor ak jigéen ak bokk borom bi soo salam ni laatul igim doo seen diggante tijaaratul ak yàlla tijaaratul am njaay ak commerce wala bay'un wala jaay ak jënd an dikrillahi ba ñuy wàññi ak lépp te nam doon jaamoo yàlla wa iqaami salaa wala dañ doon taxawalee julli wa itaai zaka wala nañ war a joxe azaka allahu akbar ay góor yoo xam ne ndax mi day wane ne comme ñoom duñ ko mel axan kay ñoo d'accord ko mel Kisra ba mu yabalee benn benn espion ni ko duggal ma ci Madina nga xool na saaba yi ni ñuy dundee parce que dama bëgg a xeexal ñoom Kisra boobu amoon doole buur bi espion dafa di bàyyi ci moom sol ay yére jëkkal ko mel mel ak yeneen yu ak ci saxaabam mel gars yi dafa ci dëkk bi la ba fekk ne espion muy yër di yër guddi bi ngi wër Madina ba tëj mi ngi wër Madina bi mu ñibbee xam nga lu mu wax Kisra dana ko gis ne bu doon takk nga tey daal bu nga tekk nga toogal ay nit a ngi nii yoo xam ne wallahi boo leen toogee sa toskan dana tey mu ne ko lu tax mu ne ko bëccëg boo leen tekkee ca marché ba ni ñuy yennoo ay dàmbas ni ñuy saax saaxi xaalis bi da nga yaakaar ne commerce rek tax yàlla bi jóge mënuñu weneen mu ne ko guddi jotee gars yi tëdd may yónnee ko ci kër yi ña ngay mel ni ay yemb yi sax di jullee alxuraan ci guddi gi man xaw ma war waxtu la ñu nelaw allahu akbar ñooñu ñooñu ku leen songu sax kare ñoo xam ne ba tëj ña nga yenu ay daam ba ñax sooy fekk nga ñi bu ñu yeggee teene mu ne guddi gi koo yëndu ci fenêtre am dégg ci ci ci ci comme ay yemma lu xew ndax ñu ngi naa fi la alquran mu ne man xaw ma woon waxtu la ñuy nelaw ak li ma am madina léegi mooy dinañ nelaw sax de wallaay doon nañ nelaw sax bar dañ doon dikk ba ci digg mbedd bi sax comme ne Omar jal fa jal suuf sa di nelaw gis nga kon danañ ko mel waaye lenn lu nekk nit ki da koy jox cër ba mu am gis nga mbir moo jël def ko ci sa xol bi soo demee bay dee booy sukuraat ibn al qayyim rahimahullah buy nettali ci nit ñi nga xam dañu am suul xaatima mu ne am na ñoo xamante ne waaye dimbali ma dañ nga fàttali loolu huit ans huit ans booy fay ma di la ko jaay mu ne loolu la waa ji wax ba dee huit ans huit ans booy fay huit ans ma jaay nga daan ko waxal laa yaay mu naan huit ans huit ans huit ans rek pour wàññi daal ma dee dikkal subhaana malikil aala misaal yi jox yi mel noonu daa bari am na koo xam ne xam nga li mu wax dafa bañoon alquran bi ñu liggéey ni ko nga ngi lépp dañ ko wax laa ilaha illa allah mu naan bañ wax laa ilaha illa allah pour wane ci bi nit wallahi loolu looy bëggal sa xol na baax bala laa jee dekk ko bi mu demee sax ba gaa yi tomb ci wax laa ilaha illa bañ mu jékki-jékki rek yërëm tam daal joxe na ma nit ñi kontaan jënd ko ma xam ni mu ngi ni wallahi laqad kafartu bi rabbi hada al-masjid ni giñ naa ne weddi naa ci yot ci moom moo sax ni roogalee mu dee borom xam-xam wax suul xaatima buñ la nit ilee ay misaal ci lépp rek dafay dellu ci nit ki li mu gënoon a def ci xolam loolaay dominé buy dee jalay dee waaye saxaaba ya allahu akbar da nga dégg toolam yi ak toolam moo ko tax a taata julli taal ko tax mu tabaxe tool ko allahu akbar da gis waa joo xam ni alal ji fii la ko fekk fii fii waxuma xam xol ji xam xam ngeen fii moom mun dëgg abu dax dax loolu tax yonte yàlla rubba izqin mudallaatin fil jannati li abi dax dax beneen riwaay mu ne rubba izqin raddaax fil jannati li abi dax dax benn waaye dañ xëccoo taatu tàngaram ak morom yonent bi ni morom bi jox ko ndax tàndarma guy mel ni yonent bi ni ko jox ko tàndarma ji yàlla dina la fay yiw am na riwaay sax yàlla dina la fay aljanna la ndeysaan waajaral xam naa di nakk nakkal di diis diisal xaar nga defa gu ma def gars yi dañoo xam nga li lébu yu tuddee buum buum ci yàlla saxaaba yi dañoo buunul ci yàlla amul taxaar fëllee ca laan gamee ni kuy tay ni ko yonent bi ndax moom rek wala même man su ma ko joxee yonent bi ne ko même yow mu ni gis naa ci yàlla am naa tool boo xam ne yonent bi yow xam nga ko juróom-benni taati tàndarmaa ngi fi dëkk bu dëkk bi daj kenn gën léwu ma tool jox naa ko lépp fi sabilillah ndax bu gam aljanna keroog bi mu yegsee ci tool bi dafa taxaw nisaa di ni yaa ummata saa muy soxna mu ni ko naam mu ni ko jaay naa tool bi ay loolu suñu soxna yi tey bu law bu mu kër gi lay dégg takk fii ni ko faat génn ma tey génn ma ëllëg sama teraay nga na ma jox xañ mooy comme li ngeen xam jamono nit ñi di ko wax ndaw si ni ko koo ko jaay mu ne ko jaay naa ko yàllaa ko yonenteen mu ne ko rabi al bayo insha allah ñu doom yi fas leen li ngeen am ci tool bi génn leen bagaas yëpp ñu génn dem ndax moomatuñ tool wallahi bu doon foofu la yem neex na benn doom bu góor taawam bu góor yootu ni xaaral ma dagg kon benn doom bala maa génn mu ne ko moomatoo lu ñuy dagg yàlla bàyyi ko mbokk yi xoolal jooju jëf man loolu moom ci gën a yëm ci jëf ci benn doom doom ji ne xaaral ma daggaale ko génn tefaale ko mu ne ko nii teggil tool bi moomatuñ ko jaay nañ ko yàlla ko yonent yonent yàlla mu ne ak a bari taata tàndarma joobu tàndarma wa maa adraakum maa tàndarmay àjjana léeg-léeg nag ma dégg gars yi di way nag tàndarmay àjjana diw am na fay tooli tool ah ndax mbir yi ëpp na ni teel ba am benn tool ba war a jënd kàmba allahu akbar mbokk yi nit ñi war nañoo delluwaat ci yàlla la tàndarmay àjjana diw am na fay tooli tool bu àllaaxira fa la ñuy mun di ba amoon benn tool sax sax ay tool yi tool moom bu ne woon sax am na fa ay taat taat sax taat tàmbara na sax wala boog am na fa ay garab yi mbokk yi dama ni kuñ la wax ni am na fay tool yi tool ku dul ku dul abu daa daa koo fa solal nga ko mbubb mu ëpp mbubb mu ëpp su nekk moom boo ñu wax ñu la yuuxu loolu moo waral li ma nekk ni ngeen reetaan parce que nit kuñ solal mbubb la ëpp ni ñu leen lay ree ak dama ni kenn am fay tool yi tool wallahi la azim kenn am fay tool yi tool dama ni kenn am ko daata tàmbara la daata tàmbara kenn am ko ku dul ko bayam ci taxal mooy kaw ndax daa gis nga sunu borom ni gaa yi de dara daawul dox seen diggante ak jaamu yàlla alal bi fii lañ ko tegal ñenn ci nit ñi ñuy wax dëddu àddina dañuy yaakaar dëddu àddina mooy doo sol lu rafet oto sax bu rafet dañoo ko war déedéet wallahi mbokk yi oto bi dàq ci àddina mën nga ko war kër gi nga rafet ci àddina yaa ngi dëddu àddina mbir mi dëgg du mbirum zaahir waaye mbirum baatin la Abdullah ibn Mubarak comme ñun nii daf leen defoon waaye nag daf ñoo gën junni yoon ak benn daf ñoo gën junni yoon mbokk mi nee na ma ak ñaar waaw kon ma wax ko ak ñett mbokkam ibn Mubarak borom xam-xam bu mag la woon bu jàng bari xam-xam bay tuur comme géej waaye mën na commerce yàlla may ko ci alal loo xam ne xam nga lu daan def gaa yi dañuy ñëw rek dañoo bëgg jaar mu ne foo dëkk nga ne barab sànq mu ne yor nga jabar ne ko waaw ak i doom la amee ñu ah su ma leen gisee ku leen dundal muy dama leen leen ngeen leen ngeen yow sa jabar say doom mu yor la di la dundal ba pare weer wu yem am lu la amee ah loolu nag wax dëgg yàlla fi ne nii moom kenn mën a ko dund gis nga benn gis ndoo ngay ne waaw sëriñ bi yow yow bis bu ne ngay wax si dëddu àddina dëddu àddina te yow fën nga tey jaay ci marché bi jaay ak jënd mu ne da ngeen gis ma def benn jëf buy wane dëddu àdduna ñu ne ko déedéet mu ne ndax mas na maa ñaan kenn mu ne déedéet mu ne maa ngi leen di jàngal di leen yor looloo tax may liggéey allah Osman ibn Affan moo tax yëngu baax na de bu kenn yàccaaraate dañ yëngu de waaye yëngu bi nag bu mu dem ba yóbbu nu foo xam ne day tax ñu dugg ca safaanu laaya ji Osman ibn Affan ci commerçant yi gën a mag la bokkoon ndeysaan nekk la woon nag la benn bi ceeb daa manqué wala dugub wala benn Osman wàcce conteneur xam ngeen kon loolu mooy bari commerçant yi ñëw kii naa ko fay naa la ci dix millions Osman ne gis naa ko ma fay loobu loolu de kooku man kon puus ma kenn ñëw ne fay naa onze millions Osman ne gis naa ko fay loobu loolu kooku jàll kenn gi ne douze mille ku wax wax ba quinze millions Osman nan fay gaa yi ni ko Osman ñun ñii ñooy commerçant yi dëkk bi waxal ki la ko fay kum doon mu ne borom asamaan man yuqridu llaha qardan xasanan yudaa'ifahu lahu fa yu ah fa yudaa'ifa lahu fa yudaa'ifahu lahu mu ne yàlla ni ñuy fayee béy bi yàlla ba yéen mun leen koo fay daal di woo sungaar ni ko demal leen Muhammad mu woo sallallahu alayhi wa sallam na woo kenn mu ñëw ñu séddale ko fuqaraa'ul madina allahu akbar ceeb daam naa ki nga xam ne loo jaayee saaf ñu jënd ci jamono yi nga xam ne commerçant ci la gën a soxla am marchandise ndax am bénéfice bu bari waaye mu jox ko fii sa parce que lu tax laa tulhiihim tijaara wala bay'un an zikrillah seen diggante tudd yàlla du ca dox wa iqaamu salaa du du dox ci diggante taxawal julli nit koo xamante ni mi ngi julli taxaw waaye xel maa nga cëpp tubaab ànd ak gis ngeen fii tubaab sànq ni mu sori xel maa nga foofu moo tax suñu borom bàyyi la ba nga julli ba noppi ñu pointé la si pour nga dem si loolu nga ñëw ba àllaaxira fekk ndekete da ngaa da ngaa àndaale ay rukoo ci sujjóot ay mouvement nga àndaale waaye àndaale woo ay julli parce que ruusu salaa wa lubbu salaa mooy jeewlu gi wax ñoom lu tax ñu mel nii lu mel mu ne yaxaafuuna ndax ñoom dañuy tiit di bàyyi xel yaxaafuuna dañ doon sóoraale yow man bis boo xam ne tataqallabu dana duppatiku fii ca bis ba alqulubu xol yi wal absaaru ak bët yi allahu akbar bis boo xam ne xol yi dañuy tiit bay waaj a fëq di génn bët yi dañuy tiit bay bu xeebu xaashiatan absaarukum tarhaquhum dalla xushaan absaarukum yaxrujuuna min al ajdaadi ka annahum jaraadun muntashir mbokk yi doomu aadama fii mooy tiitukaay waaye loolu moo ko yëg moom ak fii fii moo ñuy wan ne fii moo tax may wax alquran dafa jox alqulub wal absar nit bu tiitee fii lay tàmbalee waaye fii ñu koy wax ñun nit bu doon daa tiit mu muuru ba gisoo ko doo xam ne kii daa tiit du noonu waaye nit bu tiitee fii moom moo ko yëg bu génnee boo xoolee ba ji xam ne daa tiit alqulub wal absar ndax ñooy ànd ci tiitaange mooy nag ñoom ñaanal ay copain lañ nag ñooy ànd fu ne gis nga boo duyee fii ngëm ba mu fees dell fii ñu koy wan ndax su feesee tuuru xol bi su feesalee tuuru fu muy tuuru amul fu mu jaar amul feneen fu mu jaar fu dul ci fii moo tax gis nga boo génnee ci mbedd bi nga xool lu bon lu bon loolu da naan fàtt ca xol ba nga xoolaat lu bon mu ni fàtt ca xol ba nga xoolaat lu bon mu ni fàtt ca xol ba gis nga bu yàggee kallaa bal raana ala qulubihim moo lay dal maa kaana yàq kasaba al aynu waraana al qalb wantaha la kon mbokk yi àllaaxira day ak a jël tiit yàlla faat ñëpp dekkal ñëpp malaaka yi jiital leen ñuy daagam daagam amul sa tubay amul sa ah moo tax wax ay tàndamay àjjana di wax na ko damay àllaaxira balaa bàkka ne naan tubay jum sol ba noppi yéen yàlla bi nee na bu ñuy dem faatan uraatan gurlan damay góor bu xarfaloon xarfal jox lan dagg ca moom sax àllaaxira da koy indaale ndax loolu mooy fitat allah ah na la yàlla mooñee woon ba ngay judd allahu akbar amul tubay amul mbubb ay seen yonent bi amul mbubb tubay taaw xanaa nit ñi ko dañ fi nekk di xoolante mu ne wallaahi lii daa ngi dana yegg nit dana xool morom te du ko gis sax ndax ci damaa damay jël ci seen borom yàlla wàcc jant bi ba mu tiim bopp yi xadra miil nga gis koo xam ne ak yuuram day baax allahu akbar mbokk yi yal na yàlla jàmm lii raglu na lool raglu na lool tiitlu la balaa ñu tiitu ko àjjana dana wax lu set imam xasan basri mi ngi ñaa ngi xiif ba koo dëkk biiram comme tama ndax wow seen buli yaa ngi yuqeeku ndax dañuy yuqeelu rek bëgg naan te duñu am luñ naan jamono jooju mooy waral nit ñi di daw ci bàyyi aadama bàyyi isa ak bàyyi noo naan ko kaay waxtu suñu borom la ñu àtte ndax taxawal neex la fu mu yóbbu baax la boobu ah boobu la ñuy wax xamuñu ko fu mu yóbbu baax la xamul lu ñuy wax gis nga doomu aadama bu nekkee ci métti da ngay dégg ku naan li ma yëg ci métti mënatuma ko muñ dara yeneen ma matee benn yoon boobu daa xamul luy dee lim yëg la xam waaye xamul luy dee fu mu yóbbu baax la boobu daa xamul luy safar léegi nag kenn ñu yóbbu àjjana yàlla yàlla may ñu àjjana ca la yéen ci yàlla bi ndeysaan allahu akbar ku yaakaar ni am diw moom day ñëw toog ci piliyaanam nii gars yi di ko di ko fombalum ñaqam di raay ay tànkam alaxira wallahi kooku wax lu amut dama ni muhammad ibni abdillah sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam ajmain day ñëw ba ci ron anas sëkk di jooy di julli di ñaan di bàkkee yàlla noo xam ni moom moo ni musuma bàkkee yàlla nu mel moom sunu borom ne ko yaa Muhammad ey Muhammad tey du bisab julli tey bisu pall fay la irfa ra'saka wasfa tusaffa wasal toota yàlla nee na nga digg sa bopp bi tey du bisab julli jarul ngay jiit jugal waxal loo ñaan yàlla may la ko koo bëgg a ramu yàlla xit dimbale la ko waaw kuñ waxal leneen lu dul lii ci yonentu saa sallam kooku waxal nañ ko lu ëpp gis nga yow nga gis boo xam ni tataqallabu day duppatiku day bu xeeku day tiit fii ci bis ba am xulubu xol yi wal absaar wal fit yi góorgóorlu boobu ñu doon góorgóorlu effort boobu ñu doon def parce que dañoo gëmoon ni yàlla am na te day fay li li ngir dégg nga lu baax li laamu boobu li mooy ngir yajzihim wallahu yàlla fay leen ahsana ma amilu lu gën a rafet lan doon jëf lu gën a rafet lan doon jëf mooy boo yekkoon ab boolu am ñam bu ndaw def ca yàq yéen yàlla moom bu lay yónnee ci wax ah góori la lay defal def ca or àndalee ko rafet ak yaaxut jox la ko loolu kay mooy ahsana ma amilu li yajziyahum allah ngir yàlla fay leen ahsana ma amilu li gën a rafet la doon jëf waaye wala bii nag mu defal leen li ñu tuddee buuñaa buuñaa mooy dafa la lawa ba pare yëkkatal ah man nag kontaan naa ci yow cinq mille maa la ko may xam nga loolu bokk loolu mooy buuña waaye bii dagum yàlla dafa leen buuñaa dolli leen waaye nag min fadli fii ci mbaaxam nga rek nga koy def kenn du ko xam wallahu yàlla yarzuqu mooy wërsëgal man yashaa'u bu ko soob bi gayri xisaabin ci loo xam ne la dee toppee daa allahu akbar bu dee ci wërsëgu àddina nii la nag bu dee àllaaxira noonu la xoolal Suleymaan li ko yàlla may ah daa lii ma la jox lépp Souleymane dana ne eh jinne yi kaay ne jinne yi ñëw mu ne suba damaa bëgg ngeen demal ma ngor ngeen nuur ba ca biir a biir a biir génneel ma jamaa mel bi nekk foofu peri peri lëblëb yi yéen jëndi ne yéen su subaa damaa bëgg ngeen teel ma campement ngeen tabaxal benn étage foofu. wa man yanjus minhu an amrina jinne ci jox jox nga laal Souleymane da lay tëj dóor la sa yaram yu ci am na benn téere siira boo ci delloo mu tax ni faare nga xam ne bokk na ci ñi gën a génn ci wàllu islam jabalu faare tey moom la tubaab yi naan sugar altar du noonu la ñuy wax loolu ak c'est faux jabalu faare la jabalu faare montagne wala xam ni fala faare si yéegoon gaa yi tàggan ba tubaab yi jël ko naan Gibraltar Gibraltar amul jabalu Paris ñoo am dañoo bëgg a xamal nuñ ko tubaabee lépp lépp daa islam jabalu Paris law ndax moo ko njëkkal waaye bi ñuy génn nee nañ dem na ba ci digg àll mu romb ngeen ndam ndaa ndaa lu rëy affaire bi jaaxal ko mu ne xaaral ma teg bu ñëwee tànn mu dégg way Souleymane soo waxaalee dootu ma ko def borom xam-xam ñu ne ci bind yi Souleymane dootu tëj ca la bokk bu la bëggee nag dugal day tëj day tëj ab ndaa dugal la ca biir bàyyi la caw la ko sa yaram benn borom xam-xam day nekk ni bokk na ci Souleymane li ko yàlla mayoon Souleymane dafa woo benn xorondam xorondam bi ñëw mu ni ko xorondam dama laa bëgg tëj ci butéel bii ren ba déedéet doo génn xorondam dañu ko bismillah Souleymane jël xorondam bi dugal ko ci biir butéel xam butéel day tëj fooy nooyee fooy lekkee mu dugal ko ci biir butéel bi jël benn pepp dugub benn pepp dugub dugal ko ci biir butéel bi kaste butéel bi ni ko ba déwén Souleymane toog ba wéeroo jël mu tijji butéel bi xool fekk xorondom bi benn xaaj bi la lekk bàyyi xaaj bi ci def fekk Souleymane da ne ko xorondom looy soxla ci dugub ci at mi mu ne ko benn benn pepp mu dugalal ko benn pepp bi at mi jeexee Souleymane ñëw fekk xorondom bi genn wàllu pepp bi la lay mu ne ko xorondom lu tax nga lekk genn wàllu pepp mu ne ko dañ maa waxoon at gama bi bàyyi moo tax fit jëm benn at gama bato te xam nañ ni doomu aadama daa gaaw a fàtte mënoon ragal fit bi jeex nga fàtte ma ma ne xaaral ma xaaj ko lekk genn wàll bi boo ma fàttee ma lekk benn genn wàll bi ci am ci def allahu akbar loolu mooy def boobu yaa ngi di ci dikk ba ci wetu montagne bi xorondom bi naa yaay sama mbokk yi dugg leen gaaw Souleymane ñu ñëwoon ba borom bi ñoom dañuy bëgg a sofari bu ñuy dox rek dañuy jox gàtt bu ñuy yëg Souleymane dégg ko daal di reetaan ndax yàlla mayoon na ko mu dégg langage rab kon yàlla day maye ci àddina waaye ci àllaaxira sunu borom subhanahu wa taala mooy wërsëgal ku ko soob mu ne ko haada lii ma la jox ataahuna mooy suñuy may famnun bu la neexee mayal aw amsi bu la neexee teel bi xëy na xisaab yoon kenn du ci loolu yàlla defal na Suleymaan kon mbokk yi suñu borom subhanahu wa taala mu ni yàlla mooy wërsëgal ku ko soob ci loo xamante ni maanaam du ko ca toppe dara lu ci dox suñu borom walladina gaa yi nga xam ni kafaru dañoo weesu suñu borom beneen aaya bi nga yaakaar ba léegi amul relation ak fi ñu jógee amay ahankay yàlla mi doon wax subhanahu wa taala ci gaa yi nga xam ni ñooy góorgóorlu ñooy jiit alaxira ngëm yàlla nan doon def ci ñoom te saa bu ñu waxee baax ne rek faw ñu wax saxaan borom bi subhanahu wa taala mu fii nag laay ji samp leen ci tomb laay ji samp leen ci tomb kéemaan bi kéemaan bi mooy dafa am ñetti laaya ci alquran yoo xam ne benn bu ci nekk yàlla dafa joxe ay misaal yu luwoo yu jege yoo benn baa nga baqara benn baa nga rawaatu benn baa nga fii lii mooy ñetteel misaal la suñu borom bi joxe ñaari misaal lay sax ci ñi gëmul yàlla ñu weddi yàlla kéefër ci ak mbonte ñi muy def seen xol bu ñu ñëw dundee moo tax nekkat yi tani ñaari misaal yi yàlla da koo dóor sant ko ci façon yi yéefar yi boo demee suuratul baqara naa fekk la fa joxe woon misaal xam nga lu ma ko masaluhum kamatali lañu istawqada naaran falamma adaa maa hawla daaba allahu bi nuurihim wa tarakahum fi dulmati laa yubsiruun lu ci dox aw ka tayyibin min asamaai mooy beneen misaal fii dulmatin wa raaxatin wa baar ñaari misaal la yàlla joxe ci naafeq ni mu bonee buñ ci yeggee daal ci gën a leer fii ñaari misaal la yàlla joxe ah ci ci ci façon ak kéefër am na yeneen ñaar nekk surtout raam gis nga ñaari nekk surtout baqar borom bi dafa ne misaalan naariyan wa maaiyan aw ka tayibin min asamaai ndox la matalum ka matali sawqada naaran safara la benn bu ci nekk nag la na ci ay faram-fàccee ci njëriñ bu ñu ci yeggee dana leer incha allah waaye jii suñu borom walladina kafaru gaa yi nga xam ne ñoo leen di yàlla buñ lay misaal seen dund nim mel walladina kafaru gaa ñi leen di yàlla langal suñu borom ñett texe amaalukum seeni yëpp ah kasaraabin mi ngi mel ni sama sëriñ bi nee na njox ñaan ndox du ñaan ndox loolu la war a wax loolu daal du rek baara borom sax xanaa kooku day ñaan ndox boobu ñaan ndox dafa daan ñaan ndox de gars yi xamuñu ko de gaa yi xam nañ ñuy ñaan ndox boo demee ci àll sëfoor si daw si tali bi ñoom xam nañ ko bu baax luy ñaan ndox xanaa baax olof bi dañ xamut aywa naa waaw loolu mooy ñaan ndox xanaa kii day ñaan ndox kon xanaa olof loolu la bëggoon wax loolu olof bi naan ñaan ndox masalu bu ngeen misaala kasaraabin mi ngi mel ni ñaan ndox sëfoor bi dawal ci digg tali bi naaj bi tàng jër mu visé ba dem ca kanam naaj bi tàng lool mu seen fuy lerax lerax yi rey rey mel ni ndox moo fa tax loolu la ñu tuddee ñaan ndox ki koy seen day yaakaar ne ndox moo fa nekk kon su ma wax nu muy def day gën a yokk kenn pour mu gaaw yegg allahu akbar yàlla moo mën a tam day misaal wa yadribu llahu linnaasi l amsal kataraabin mi ngi mel ni ñaan ndox bi xiyaatin ca digg àll ba yaxsabuhu zam'aanu ki mar dafay yaakaar ni maa am ndox moo fa nekk lay saa wéex wéex yi jigo dawa dawa daw ba lim am ci énergie jeex ah ci ndénéer waaw waxoon naa sëriñ bi mooy sama sëriñ ci wàllu loxa ndénéer boo dikkee ci àll bi mooy comme misaal ma doon joxe sànq ci tali dama ko doon joxe ci tali ngir ngeen xam waaye booba xam ngeen tali amut kon loolu mbokk mi wax sama sëriñ bi jazakallahu xayran neneen gis nga boo dikkee ci àll bi ci barab yooyee nga xamante ni boo téene day lerax lerax yi di xuyi xuyi comme ni tali bi def moo tax borom tax dañuy wax ni mooy barab boo xam ni la sajara fihi wala madar wala shay barab boo xam ne ak ndànd foy foy la dara ñëw ab àll la rek ngay seen ñu xuyi xuyi nga defe ni ndox moo fa nekk sunu borom ni nga daw say énergie bi nga am ba yëg lam yejidbu shay an doo fa fekk dara kii lu koy dal kon day boole la rek la yaakaar ju tax ak xarul yokk dégg li mu baax alquran li muy misaale wallahi misaale alquran yi benn rek defar na nit xatta ida jaahu bu daw ba yegg lam yajidu say an fekku fa tus mu boole ñaari musiba musiba yi yaakaar ju tax ak musiba yi maroon na waaye gën naa mar daa gën a mar ñett doon li wet waaw ma may rek ko defut dara ma doy la ci ñeen ma may rek ko defut dara ndeysaan allahu akbar gis nga ñett moom mbaa ñeen yaakaaram tas na maram yokk na mere na boppam maa ngi yaakaar ni ku fa taxoon di wax ak moom sax mu dóor la def de loolu mooy yéetal ñàkk a nekk ci sunna wala ñàkk a nekk ci lislaam kon sunu borom subhanahu wa taala mu ni xatta ida jaahu ba waa ji yegg lam yajiduhu shay'an du fekk dara ndeysaan ah wa wajada allaha indahu nga fekk yàlla na di la ma xaar ndax inna rabbaka la bil mirsad fa waffaahu xisaaba yàlla fay ko nag ak ay jëfam wallahu yàlla sariixul xisaab bu gaaw a àccal mbokk yi misaal mi su ma ko férintee dama lay wax misaal mu njëkk bi gaa yi nga xam ne ñoom dañoo nekk ak neen ak ay caaxaan ndeysaan da ngay gis koo xam ne li mu nekk da cee xatar raayu te daanu ay jëli tëbaka dal te wallahi xam nga ay ay jaaxaan mu dee te yaakaar ni indi na ay siyaaba yàlla def ko xabaan mansuuran daal di pënd sànni yaakaaram sax mu mere boppam gis nga xam nga lu muy mujje bu doon ci àddina xam nga looy mujje yéen yaakaar waaye dañuy xaru boo gëm di yàlla bu dee àddina xam nga dangay xaru bu dee àllaaxira lii la waa ji def màtt baaraamam ba mu tagg deret ji ni cara taqal nit nga ne ma lan ma ci takkal ci la ma ne wa yawma yaxadu zalimu ala yadayhi keroog laa tooñkat di matt ñaari loxoom ba mu dagg deret ji ne caw tooyal nit ñi lu xew daa réccu yaqulu ma nga naan yaa laytani ittaxatu maa rasuli sabila ay man ku ma jëm su ma yëgoon ànd ci yoon yonent bi woote yaa waylata am ku ñeel na ma laytani lam attaxid fulaan qalila aka neexoon du ma jël ci mu nekk sama xarit laqad adallani ani dikri baada id jaani moo ma sànq ba jaaruma ci yoon bi après dañ lay bàyyi nga yuuxoo ba dañu pointé la garab ndax li ngay def doon benn njëriñ fi nga ko war a def ci kaw suuf mooy gën bi day notti kon sunu borom subhanahu wa taala mu ni bu yëgtee fekk fa yàlla yàlla fay moo tax mbokk yi sant leen yàlla bu baax wallaay ngëm gi la yàlla jox liimaan gi la yàlla jox yamunnuuna alayka an aslamu qul laa tamunnu alayya islaamakum bal illaahu yamunnu alayka an hadaakum lil imaani in kuntum saadiqin ñoo war a sant yàlla yàlla bu la defoon nga nekk doom yi doom doom yu sàppale doom yu sàppale ba pare nekk bi yéefar nga nekkoon doomi américain nekk bi yéefar wala tubaab wala end boo xam ne nak lay jàpp bu la yàlla defoon kooko jur la loo ci man bu la yàlla defoon nga nekk bi yéefar loo ci man wallaay yaa ngi ay milliards di demal moom téye boobu mooy li mel ne wax bis bu ne rek ay milliards nga yore téye boobu ni'matul sam'i ni'matul basar ni'matul shamm ni'matul qawl ni'matul batsh ni'matul lisan ni'matul rijlayn wa ni'matul iman akbar min jami' al ni'am dunya allah moo tax borom bi sootal mu ni beneen misaal mu ni awwala boog beneen misaal gi ka zulumaatin ak lëndëm ak lëndëm fii baxrin lul géej te diggu géej lëndëm këruus waaw nag nga tombeeg waxtu bii nag xam ngeen léeg-léeg bu dee taw wala muy fii asamaan si xam ngeen day lëndëm gis ngeen ni mel nii lëndëm mu ngi mel ni suñu day bëgg a def ñu jotagul xam ngeen ni kon bu doon guddi dana gën lëndëm ñu joxe misaal bi ci guddi mu mel nii ba pare nekk waxtu guddi yam saawu nga ne ci biir géej ga yëpp saa wu ñu ko muur maw bi bu si géej min fawqihi mawdun yeneen duusi jur gi tegawaat ca kawam min fawqihi saxaabun niir we xiin weeg lëndëmaay gi tege ca kawam zulumaatun mu ne ci biir lëndëm goo xam ne baaxugaa lenn la fawqa baadin na nga teg ca kaw morom la lëndëm gi dafa takkarnaate ba ida axraja yadahu boo ne nii sa loxo ak lum la jege jege lam yakad yaraahu doo ko gis allahu akbar al allaamatu saabi day wax ci laaj wax ci am solo mu ne xool loxo ni mu jegee morom boppam loxo da ngay def nii lëndëm gi day tar ba boo defee nii doo gis salon mbokk yi di nga gis koo xam ne njub ak mbaax da koo jege ba boo naan lii moom ngay doon xam te du ci yëg nee naa la abu jahlin bu tijjee feneen tam bu ko buuxee bu baax boo amul temps ci kaw Muhammad lay dal ndax foofa lay romb ñoo taxaloo ko ndax ñoo na ci lislaam déedéet Salman dama ne la sëñ ginnaaw waataati per nga xam ne pour nga yegg ci Madina rek faw nga def ay weer ci yoon bi nekkatee man yahdihi llahu fa huwa al-muhtad ku yàlla gindi koo koy gindee wa man yudlil falan tajida lahu waliyan murshida mbokk yi misaal mu am solo bi di nga gis nit nga yéene ko njub waaye du mën a baax ndax ku zulumaatul noo ko tiit baaduha fawqa baadu ba ida axraja bu génnee loxoom moom lam yàq yëraa di ko gis koo xam ne sa loxo bokk doo ko gis nooy gisee njub gi la dégg moo tax mbokk yi ku nekk nay ñaan yàlla taxal ko ñi nga xam ne nekkul ci li nga ne dee leen ñaanal dangaa yaakaar ni yow la ñu yàq wallahi da nga gis nit jooy lu ko tax a jooy moom nee dafa bëgg a baax loolu moom ñun doxal li ñu dajeew daa bari loolu naa sëriñ nga xam ne li may wax nit jooy bi nga bëgg baax waaye mënuma baax allahu akbar moo tax gis nga mbaax gi nga mbaax da nga yaakaar ni par hasard nii rek affaire moo tax doomu aadama lu ko yomb rek mu xoolee. inna min siddati duhuri xafa yi la jege ba mu doo ko gis. kan ci yéen mooy gis xeetu suufam am na ci yéen koo xam ñu ngi gis xeetu suuf bi. déedéet lu tax ndax xeetu suuf bi moo la gën a jege ndax xeetu kaw bi ndax xeetu kaw bi dañu tollu ca kaw bii dañuy pàcc ci biir yi la jege mu ëpp doo ko gis ak xéewal yi la yàlla defal yow ngëm yàlla jiitu doo ko gis. aw ka zulumaatin fii baxrin lii lëndëm ko tax ci biir géej ah sunu borom ni yaxsaahu mawjun yaxsaahu mi ngi ko téye mawjun duusi géej min fawqihi ca kaw duusi yooyu mawjun yeneen duusi géej ma nga waat ca kawam min fawqihi saxaabu niir waa nga ca kaw asamaan lëndëm ko ruus soo bee guddi zulumaatin ak lëndëm baaxugaa lenn la fawqa baadin mi ngi tege ci kaw la ca def lu gën ruus leer amul ida axraja yadahu bi génneem loxo lam yakad yaraa du ko gis suñu borom ni kon loolu moo lay wan njub lum la jege jege jege jege bu la yàlla boolewul doo bokk waaye gis nga jubati lum la jege jege jege bu la yàlla sàmmee doo ca def yàlla yàlla sàmm yàlla yàlla sàmm misaal mi lan la suñu borom bi joxe yéebal yi ñoom danoo mel noo xam ni maanaam njub bi lu mu leen jege jege jege bu leen yàlla dimbal duñ ko jot moo tax mu ne wa man lam yajal allahu lahu nuuran képp koo xam ni yàlla defalu ko leera wa man lam yajal allahu lahu nuuran képp ku yàlla defalul leer fa maa lahu min nuur kooku du am leer allah mais nga dee boo clair maa la seen affaire yi xam boo clair yi clair clair yooyu yu bari bari yooyu yëpp gis nga boo ci diwoo leerum dëgg bokkut ak leer la déedéet allahu akbar wallaay da ngay gis koo xam day leer nañ ni kanam gi mel ni saway faaru ko di ray ray te billahi du mel ko sax du laal sax mel da ngay gis koo xam dafay leer nañ da nga koy xool bëgg ko wallaay da nga koy bëgg lu tax nga koy bëgg yow mi ko bëgg xamoo lu tax nga bëgg ko fekk yàlla ci boppam su bëggee ab jaar bëggee ngim ko bëgg dafay roox ci moom lu tax nit ñi bëgg ko loolu la yàlla defaloon Moussa Moussa bi mu nekkee liir xool bëgg la tuddoon avant ñu koy njëriñ di ko tudd loolu laa wax mbokk ma ne Moussa bi mu nekkee lee liir avant ñu koy njëriñ di ko tuddee Moussa dama ne xool bëgg la tudd ndax yàlla moo ne ko alqaytu alayka mahabbatan minni moo tax jamono Firawna xool ko ñu ne ko rey Firawna xool ko xataraayu deux jours trois jours mu génn ca parce que wa alqaytu alayka mahabbatan minni gis nga taxal ci jaamu yàlla ñu ngi ne rafet mooy affaire yàlla bi dina la normal te mbir du loolu rafet leer la bu yàlla lay def ci nit dama ni nit ñi dañ lay bëgg te defaloo leen dara dara dara rawatina la gindi bu dee ci kaw moom xasan basri nee na gaa yi yàlla yi di tax ñu leer mooy dañu wéet ak yàlla seen borom ci lëndëm gi di lëndëmtuy ñaan yàlla diw leen ci leer gi allahu akbar yàlla diw leen ci leer gi moo tax ñu yeew yu birax birax gis nga kon suñu borom ni ku yàlla defalul leer kooku du am leer léegi nag laay jooju jeex na bindab tay bi dama laa bëggoon a jox misaal li ma tàmbalee woon saa ba bind bi jeex aaya bu jeex rek ba ca toog ñoom ñaar booba rek ca war a toog gis nga nit dëgg la yàlla na ko gis waaye taaw gis yàlla yii war naa nga gën a mën a delluwaat ci yàlla ba am leer suñu borom mu ne alam daal xanaa di foog taxaw seetlu an allaha ni naka yàlla kat yusabbihu lahu mi ngi koy sàbbaat man fi samawaati li ne ci asamaan tuuf wal ard li ni suuf tuuf yéen ci yàlla dina xaqati samaau wa xoqa laha alqaid asamaan di nee na xaq xaq xaq xaq mel ni luy waale fàq di fàq te mooy ay def loolu ñu ne ko yàlla def lu xew muy dafa gis gan amul koo mën a teg tànk lu dul ab malaaka nga sujjóot mbaa nga rukkoo mbaa nga taxaw di jaamu yàlla allahu akbar mu ne bu ngeen xamoon li ma xam bu ngeen di ree tuuti ngeen di ree bu ngeen di jooy jooy lu bay bu ngeen xamoon li ma xam di ngeen dem ba ci kaw montagne yi ngeen sujjóot fa di jooy ba dee bu ngeen xamoon li ma xam soxna sax du ngeen ko takk nii la xadis bi ñëwee soxna sax du ngeen ko takk wallaay dañoo xamul li nga xam yaa rasulullah alam tara xanaa dañoo taxaw seetlu ci ni an allah naka yàlla yusabbihu lahu mi koy sàbbaalal ko man fi samawaati mbooleem li ci asamaan allahu akbar yàlla ñàkkul ku ko jaamu de boo demee ba tisbaar bi tàbsan daal lu koy doon wallahi na ko xam ne balaa sa juróom ñeenti junni imaam bi judd moom fekkoon na ko fi moom muy jaamu yàlla te day continuer nga dee ba ko te yàlla rek lay jaamu te li gën a yéeme mooy koo xam ne xamut mooy yàlla du gëmmantu du sonn day jaamu yàlla kese ndax ci leer la ko bindee muy malaaka dëkkee jaamu yàlla te du mooy ba àllaaxira mu ne subhaana maa ngi tuub yow yàlla de yàlla ni ko loo def mu ne ko maa abad naa tax xaqaa ibadati ndax jaamu mu ne ni ma la war a jaamu mbokk yi malaaka jiitu la mujj la di jaamu yàlla suba ngoon guddi bëccëg te du nelaw te du gëmee du sonn te du mooy yàlla àllaaxira dana subhaana maa ngi tuub yow yàlla yàlla ni ko da ngaa def lu leer ngay tuub mu ne ko waaw ma amat naa ko xataa ibaad bi xam gi ma la xam wóor na ma ni jaamu ma la ni ma la war a jaam wallahi mbokk ñi dañoo xamul yàlla subhanahu wa taala buñ ko xamul dëgg dëgg xam danañ wax loolu malaa koy wax nit bu ne suñu borom ne wa tayru xatta picc lii gàcce la mbokk yi ci ñun lii aay bi aay aay bu bu ñuy bu ñuy peeral la bu ñuy rusloo nag ci ñàkk jaamu yàlla ba am lëndëm gim gii ma baati ci aay yow mi nga xam ne yàlla war na la jub ngay fo dama ne aay bi da lay rusloo wa tayru picc nga xam ne lafeer mu dee nga yàpp nga ciy xalaat lekk mu ni wa tayru picc saapaatin di lappax lappax ci kaw jaww ji yàlla tee ay laafam kullu ñun ñëpp qad alima xam na salaatahu ni muy jullee wa tasbihahu ni muy saxaalee yàlla allahu akbar picc maa ngi fàttali bi ñu ne ca daara ji soo mu sànni yàlla lasper xam ngeen lasper di picc boo dee tay mu mooy da nga naan pom am nga temps da ngaa julli suba maa ngi fàttaliku loolu loolu lañ doon wax bi ñu nekkee xale ndax dañu ne picc mi bu jullee suba rek mënoo ko rey ci picc waaye boo dee nii ni ko tay mu ne pat nga ne ah kii da julliwut suba tey loolu lañ doon wax bi ñuy nekk ay booy xam naa bu wéeru ci jege na lii de gis nga wa tayru picc allahu akbar kon lu ñu ñëpp picc yëpp tànn Moussa Ndioukri ramaxu xëti pitax ah ah toq li nga xam toqoo kaay may ma ndox loolu la ñuy wax dañu nekk kon gis nga ñoom ñëpp xad alima xam na salaatahu ni muy jullee ponkal mu doy yow xamoo nu muy jullee yàlla mu ne picc xad alima xam na salaatahu ni muy jullee ndax yàlla jàngal na ko yow xamoo nu muy jullee lii mooy gàtt wa tasbihaw xam ne li muy sàbbaale yàlla te moom du jël ay dikk yu ñu toog de picc lu naturel lay dikk lu naturel mooy la fi leen ci bàyyoon sallallahu alayhi wa sallam lii du ay léeb de yonente bi sallallahu alayhi wa sallam jël na ñetti xeer teg ko ci loxoom xeer bu nekk naan subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim sahaaba yëpp yéemu yonente bi njëkkati ñetti xeer yi teg ko ci loxol Aboubacar mu wax la mu waxoon mu yëkkati xeer yi teg ko ci loxol Omar mu wax la mu waxoon yonente bi daal yëkkati xeer yi sànni xeer yi noonu lii sahaaba yi di ko gis mu leen wal wa in min shay'in amul looy gis illa yusabbihu bihamdihi lu dul mi ngi sàbbal yàlla walakin li am mooy laa tafqahuna tasbihahum yaa xamut lu muy wax da nga yaakaar ne ginnaaw daa daa amul jot rek fajar bi mu ne mii ko ko ko ko ko ko ko ko rek déedéet picc yi ngay romb ci pét ci pét ci pét ci pét bi ah boo romboon garab yi yenn garab yi li ci nekk picc moom nu mu tudd sax njugub njugub nga xam ne dafa bëri coow bëri coow doo xam ni muy wax lan la fekk kullun qad alima salaatu wa tasbiha yow da nga war na rus bu dee picc di sax fas yi ngexal nag wi naañ ginaar giy sax xar mi ngeen ah mus mi ngeen boo ko déggee da ngay xam ni yow yaa tàggan defoo la la war waaye gaa yaa ngay def la leen war yow yaa xamul noo jullee parce que toppatoo woo waaye moom xam na nu muy jullee ndax daf koo toppatoo kon la ñoom ñëpp qad alima xam na salaatahu nu muy jullee allahu akbar ci faru wa tasbihahu xam na nu muy sàbbaale yàlla wallahu yàlla alimun aji xam la bima yafaaluuna ci li ngeen def lépp mbokk yi dañ góorgóorlu woon baax a baax dañu gën a góorgóorlu laay ji laay ji tam suñuy mbagg la dina delloowaat suñu place dëgg-dëgg ngir ñu war a jaamu yàlla picc yi ngay seen nii naaw a dem ah da ngay sàbbal yàlla de xeer yaa ngay sàbbal allahu akbar su yent yàlla daawude waxoon naa bu jàngal ko ah xeer yi dañuy def nii di jaayu daawud dafa neexoon baax buy jàng tawraat picc muy naaw sax day dégg ba ci asamaan bi baax ndax déglu baatu daawud da ngay dégg ñii di résonné ah moom daan ñuy jaayu nii la ko alquran waxe allahu akbar lu tax ndax baatu daawud ba bi neex yaa ji yaa yaa yaa yaa yaa yaa jibaal awwi bi maahu yàlla yee montagne yi awwi bi maahu waaye jaayul ànd ak daawuda ci baatam bu neex waay wa tayra picc yi kadalika wa alanna lahu lhadid yàlla da koo yombalal weñ ba amul entreprise amul usine amul ay matériel amul dara te lu mu bëgg liggéey ci rek ci ñaari loxo mi la koy liggéeyee moo tax benn borom xam-xam daa xool yi am Abu Daawud Abu Daawud mu sunu xeet bi Muhammad di ko xool ci xam-xam xadis ba mu yàgg mu ni ko uliina li abi daawud alxadida uliina li abi daawud alxadida kama uliina li daawud alxadida mu ni yow nag li tax nga mel nii maa ngi xam ni yàlla dalaa yombalal xam-xam xadis comme na mu yombaleewoon sa turandoo xam-xam wi allahu akbar kon nu ngi ñaan sunu borom subhanahu wa taala bi asmaa'i alxusna wa sifaatihi alula yal na yàlla def alquran mu nekk luy ballu ci suñuy xol yal na yàlla def qur'an rabia qulubina wa nuura sudurina wa jila ahzanina wa zihaba humumina wa humumina nasalu allah nasaluka allahuma ridaka waljanna nasaluka allahuma ridaka waljanna nasaluka allahuma ridaka waljanna wa naudu bika min sakhatika wannar wasal allahu wasallam ala muhammadin wa alihi wa sahbihi